kàdd yi ma fas yéene yëkkati kaddu njëggal la ma fas yéene jéggalu sama mbokki murit yi ak fu ñu mënti nekk ci àdduna bi di jéggalu sama mbokki murit yi nekk biir Touba ak sama mbokki bopp lépp lu ma mës wax mu naqari kenn ci biir Sénégal ci jullit ñi rek maa ngi la koy jéggalu ci barke borom bi ci barke weeru kooru mag yi maa ngi leen di ñaan ngeen jéggal ma yéen ñëpp njëgal li nag dama koy teg ci loxob sama sëriñ bi ma sukk jébalu muy sëriñ Abo Mbakkeem sëriñ Abdou Fata mu teg ko ci loxo waajuram mu teg ko ci loxo xalif général de Mouride mii Serigne Touba ci kaw suuf yal na yàlla guddal fanam te wéral ko maa ngi jégalu ñëpp gépp kuréel guy dox ci luy nuroog luy sàmm ndonal mag ñi maa ngi lay jégalu te di la tàllal loxo commencé ko ci maam Cheikh Naam ay yes maa ngi leen di jégalu ngeen di ñaan képp ku bëgg a jàpp ci njëgale nga wasaareel ma sama vidéo bi ngir jëmmi borom Touba Mbacke Touba laa juddoo lu ma am Touba moo ko gënal lu ma am sëriñ Touba Mbacke moo ko gënal lu ma li ma jot a am falaa ko yóbbu te lu ma amoon subat falaa ko yóbbu kon maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di jégalu une maa ngi leen di jégalu jégal leen ma te yàlla buur bi rek tax jërë jëfati mbokk yi ñu ngi rafetlu sunu ànd ak yéen seen mbokk Talla xel ko moo nekk ci kàddu gi ñu ngi nuyu mboolem ñeenti xaaj yi dégg sunu kaddu góor ak jigéen mag ak ndaw fu ci nit nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax te jox sa wàccuwaay moo xam muy fii ci réew mi wala fële ci bitim réew Euh, ñi ngi toog nag ak sëriñ euh, Serigne Khadim Boussa imam euh, di suñu xarit di sunu Serigne xam naa kenn dootu leen ko présenté ti macha ci xam-xam bi waaye tamit mu jëmm joo xam ne moom ak defar rek lan ko xamee suñ Khadim moomu nag lañ toogal tey wara a ak moom laaj ak tontu rek ci ay xew-xew yoo xam ne xew na Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilah wasalaatu wasalaam rasulillah sayidina muhammadin wa alihi wa sëñ Talla ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di ndokkeel tamit ci bis yu tedd yi ñu nekk muy bisi chahru ramadan mubarak di ndokkeel waa Tawfekh Production tamit di leen siyaare bu baax tamit di am mbégte ci am ak yéen ay jataay euh, jërëjëf euh, Boussa xam naa dañuy xuus rek euh, dugg ci laaj yi mu mel ni am na lu xew fan yi muy Cheikh Thiam di mbokkum taalibu moo xam ne mu ngi foofu ci Amérique. Euh, te it ku tudd Amérique tudd la ndax euh, foofu nga nekkoon naam bu fekk sax yaa moom jaxasoowu leen waaye xam naa du ñàkk da nga ko dégg rek en tant que taalib bu nekk Amérique euh, muy Cheikh Thiam. mu daan yëkkati ay kàddu nag di ko jëmale ci yoonu murit muy ay kàddu yoo xam ne neexul woon kenn ci yoon wi waaye ginnaaw ba kat dafay mel ne ci ay kàddoom da caa deltu ginnaaw daal nii mu ngi koy tuub di ko jégglu yow nag ngay kilifa waaye di jëm joo xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci yoon wi rek dañ lay dégg nga ci yëkkati ay kàddu yoo xam ne képp ko dégg rek mën nga koo jël Euh, jëriñoo ko te ay kàddu jariñ rek lay doon euh, sëñ bi sa ginnaaw bi nga déggee moom mu daan yëkkati ay kàddu ginnaaw bi mu deltu ginnaaw daal di tuub ana euh, jàngat ban nga ñu ciy defal. bismillaahi rahmaani rahiim sëñ Talla li nga wax lu am solo la ndax dafa concerné l'islam ji concerné tarixat Cheikhul Khadim muy yoonu murid wi nga xam te ni amuñ loolu moom muy koo xam te ni Cheikh Thiam la tudd comme ni nga ko waxee. nekk ak ñun ci Amérique donte xëy na jotaay yi bëriwul ma moom mm-hmm. waaye fi ñu nekk soreewul ndax maa ngi New York Harlem mm-hmm. moom mu nekk New Jersey mm-hmm. diggante bi yaakaar naa soo koy daw gën jaa bari quarante di nga àgg gën jaa néew vingt cinq minutes nga àgg fa amul embouteillage kon soreewuñ waaye soreewoon nañ lool nag ci ay xalaat ndax xëy na am na kàddu yu mu daan yëkkati di ko jëmmale ci yoon wi te su ma nee di ko jëmale ci yoon wi mooy di ko jëmale ci day indi yoon wi mm-hmm. ay kilifa yu mag mag ci yoonu murit te amuñ lu dul ñooñu tamit mm-hmm. waaye nag dafa mel ni ku am taw féex la mm-hmm. ndax ñaanu sëriñ bi mel na ni mi ngi nangu see ci moom ndax sëriñ bi daa waxoon ni képp koo xam te ni yàlla mi may ŋàññi mbaa may yedd mbaa may xas maa ngi lay ñaan nga wëlbati ma nga wëlbatil ma ab xolam mu ñëwaat ci man di di di di ma liggéeyal. macha ko may tuub. Mhm. ak wommatu ci man. Mhm. loolu nag mooy rek képp ku ŋàññi sama yoon mbaa mu ŋàññi sama njaboot tamit. Mhm. na ko may mu mën a amaat daluk ak xol bu wëlbatiku ba ñëwaat ci moom. Sëñ Tuubaa yàlla da ko jox xol yi moo tax. te yàlla moo waxoon ni maay wëlbati xol yi nu ma neexee. kon ku mu wëlbati sab xol nga jubluwaat suñ tubaa mm-hmm. te mooy jubluwaat ak njabootam ndax suñ tubaa ak njabootam deesu leen tàqale mm-hmm. loolu tawfeexu suñ borom nga am kon mm-hmm. wax ji nag wax dëgg yàlla moom jéggul na ko tuub na ko tuubal ko mbooleem yoonu murit tuubal ko mbooleem jullit yi ak mbooleem ñi nga xam te ñoom la doon yëkkati kàddu yi di na jëmale ci ñoom firnde ji it man am naa ci lu ndaxte bokk naa ci ñu njëkk a fii ci dëkk bi mhm. loolu sax mooy liñ jot a dégg mooy yàgg nga ci ay jéego yoo xam ne mhm. kenn yëg ko lépp dañ ko doon liggéey boon boo xam ne doon ko ko amal ci suuf mhm. euh, ba yàlla may la ci ndam tey dëgg la euh, ndaxte euh, man damaa jàpp ni rek lépp loo xam te ni dafa jëm ci yoon wi rek ñun ñoo war a nekk sordaal yi nga xam te ni ñoo koy ñoo koy ñoo koy xeexal sëriñ bi ndax la mu waxoon ni yàlla yàlla na ma may ay sëdd yoo xamante ni maanaam dañuy taxawal diine mooy rek képp koo xam te ni ci njabootu sëriñ bi nga bokk mm-hmm. njaboot nag bu ñu ko waxee mooy taalibe yi ak mbokki deret yi mm-hmm. ñëpp rek mm-hmm. sëriñ Tuubaa moom taalibe rek la am comme ni ñu ko waxee ko xamee yàgg nañ cee dox nag ci yu mel noonu ndaxte dama jàpp ni nit ki bu fekkee dafa am lu ko convaincre ci idéologie bi ngay nekk war nga cee xeex ak moom ci wàllu xalaat ak wàllu waxtaan mooy loon suñu débat yi ñuy doon def ak salafiste yeeg wahabiste yeeg yooyu yëpp loolu moo ko waraloon waaye nag bu jaree téye ci biir kër gi jar na téye tamit waxtaan moom jar na téye bu yaree jaree yar jar na yar mhm. bu jaree lu mu mën a jar rek ba mu toog ci biir kër gi mu bokk mhm. da koy jar dëgg Cheikh nag jokkoo nañ ay yoon mhm. wax dëgg yàlla muy nit koo xamante nii xooma ci moom bu weesoo wax kàddu yim doon wax xooma ci moom du yoon wi ñor ko xëy na fa mu doon jaar ngir mën a saafara la mu bëgg a saafara moo dul yoon wax waaye yéeneem moom xam naa ni nekkul lu bon ci yoon mhm. ci li ma wan ci ay kàddoom mhm. xaalatil arabu aman na xul lam tu'minu walakin xulu aslam naa mhm. suñ borom moom pas-pas ci ci diine nit ki da wax jëfe ko gëm ko ci ab xolam bu fekkee daal yooyu ànd na ci moom mu gëm ko ci ab xolam te jàpp naa ni lu am la te wax na ko ñu dégg ko te xam naa ni da ko jëf ndax yéene ji am dëgg dëgg dëgg dëgg mooy liggéeyal Tuubaa kon nag loolu yaakaar naa ku mat a jàppale ci mbir moomu la mhm. ku a jàppale ci mbir moomu la mhm. nit nag soo jógee def lu baax ñaare du mhm. ci bëree bëri nit ñi dañuy gisee nii ñi gisee nii moo tax ñu bëri wax suñ taala jaxate lu tax mu wax lii lu ko seex defal lu ko nangam seex amul du muy defal kenn wallaay wallaay wallaay amul lu muy defal seex yaakaar naa bu defal day am yaa koy defal sax yow wallaay wallaay waaye mun laa defal moom wallaay bu moom muy góorgóorlu wallaay wallaay bu kon yow loolu bu mu la tax a découragé wallaay wallaay na ma ay yoon bi ma mujjee woo it. Mhm. xëy na boobu sax moo tax mu gën a am fit. Mhm, mhm. ñu waxtaan ma ak moom. mu xamal ma ay principe mu xamal ma li mu gëm ak ni mu bëgg a soppi ko. ma ne ko ah loolu de moom ahlan wa sahlan. ma ne yoonu suñ tubaab yi moom képp koo xam te ni maam yéefar yi sax. dañuy jaar ci man di ci dugg. ndeysaan kon nag koo xam te ni ci la bokkoon. wala ci la jàpp nañ ci la bokk ba tey. ay xalaatam wuuteeg lenn ci ay xalaat yi kilifa yi. ngir ñàkk a dégg gum ñàkk a dégg seen wax wala ñàkk xam gum leen ñàkk xam dëgg-dëgg. bu demee bëgg a ñëw. man du ma ko ni mukk doo ndax yaakaar naa kenn du sànni sànni kenn suñ tubaab mi nga xam te ni moom lañu yaakaar àddina àllaaxira mhm. ba mu agsee rek tubaab bi def lépp lépp lépp lépp lépp mhm. ba mu agsee lam njëkk ko wax mooy jégal naa leen jégal naa leen mhm. jégal googu sax moo taxoon daanaka lañ ko def ci ay mbir daaw ko nangoo di di ko wax sax wala mu koy waxtaane kon loolu ndax fa faafu was faxu lañu wax ngay jégale pare fàtte na nga lañ la defoon nga koy fàtte moo tax kon bi mu ma waxee ma ne ko ah yow de wax dëgg yàlla ñi nga doon wax offensé woon na ñëpp ndax li tax mu gënoon a offensé nit ñi mooy noonu suñ tubaab yi dañ koo ndamoo dañu wax kii kat ci la bokkoon mhm. ci ñoom la bokkoon léegi mi ngi leen di wax nangam ak nangam ak nangam di ko def argument mhm. kon soo demee ba bëgg a del siwaat mhm. wan leen ginnaaw ñoom loolu tawfeex nga ci am kon ci laa ko ni dangay ngay jokkoo ak yenn kilifa yi ma ku mel na ma ku mel suñu suñu bas du xaalis boo jokkoo moom. Mm, même digganteem ak suñu bas sax dégg naa am na ay tànk am na ay jéego yoo ci jot a amal. dëgg la man waxtaan ak suñu bas. suñu bas sax nag ku ku am grandeur la. Mm-hmm, kilifa mm-hmm. dëgg dëgg mooy suñu bas. wallaay wallaay ndax man ba ñu waxtaanee moom dañoo man de see xawma ko sax. wax rek waaye man xawma ko sax. ndeysaan ndax man du ma diglu yooyu. Mm-hmm. moom du diglu lu bon ndeysaan. wallaay ndeysaan ab sang lay ma man duma diglu yooyu xamoo sax mhm, mhm. waaye rek bu fekkee dafa bëgg a gis ci yoon yi moom yoon yi moom ubbil nañ bunt yi ñëpp te moom mooy bunt bi yoon yi ndax mooy sa porte porte bi seera <laughs> ma ne ko kon ndax mën naa la ko jox ma waaw keroog damaa dëppale ñaari téléphone yi hmm? jox ko téléphone ndax boobu suñ bas mi ci àll bi mhm. ci tool yi man tey maa ngi sori woon naa ma dëppale ñaari téléphone ñu wax ñoom ñaar lu yàgg daanaka seex sax xoolam dafa xaw a tooy keroog ndeysaan ngi ko wan ci image ci wedd mi buutu suñu bas te àddina nag lépp noonu la demee mhm, mhm. lépp lépp noonu demee mhm, da gis koo xam te ni day wax ci nit lu bon a bon xam te ni moom sax xamu ko fekk ay image la gis ci moom rek dégg ko waaye bu jaxasoo moom rek amul réccu ci ñu doon jëflante ak moom moo tax nit moom la góor gu mag ga waxoon rek ataaya laa laa ko jàppee ñam rek mooy tax ma mën koo àtte dëgg la de waaw ñoom rek mooy tax ma kon bi ñu suñu bés daal di koy xamal ni ko daal nii lay dalal bu baax a baax a yoon yi moom moom moo ko sëñ bee ko moom mhm. te sëñ bi ko moom lañ ne si lu nekk teewul muñ na ko man nag du ma xool lu ma nit di wax wala lu muy def nit tamit du ma wax mukk ba tax may may alerté wu ci kaw wala may wax ak wala may waaye suñ <laughs> Tuubaa moom buñ ko laalee mhm. mën naa caa wax mhm, mhm, waaye sama jëmm jëmm itteelu ma ndeysaan loolu it maam lu am solo la principe bu am solo trop sax ñun ñii loolu lañ gëm ñëpp ko ci war a a wax a naa ni tey buñ jógee di yëkkati ay kàddu hmm. ci ñu mel ni yow leen ko jànge rek te tamit ba tey ñu ngi topp seen ginnaaw ngeen doon ñoo xam te wax dëgg yàlla jamono ju nekk dañ leen xemeem waaye di leen tiitroo sëñ Xaadim ginnaaw bu kàddu googu euh, daanoo euh, kon dégg nga waxee sëñ Cheikh Thiam ji mhm. euh, mu jéggalu kilifa yi jéggalu mbokk taalibe yi mhm. ban message nga am bu jëm ci moom waaye ban message nga am bu jëm ci bi jëm ci moom mhm. mooy mu gën a modéré bu baax a baax a baax communication comme ni ngeen koy waxee trop communication ti communication maanaam wax ju bari day tax maanaam kenn du la kiyati dëgg la bàyyeeti xel dëgg la dëgg la benn boobu mm-hmm. ñaareel bi mooy mu xam ne yoon wi dafa am lu ko tënk mm-hmm. ci li ko tënk mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere mm-hmm. te moom nag mi ngi ci biir loola ndax wax dëgg yàlla ku gis keroog ni mu soloo solo Baye Fall gi mu sol commencé jërëjëf suñu tubaab jërëjëf si maam Cheikh Ibrahima Fall wax yi murid yi mu wax wax dëgg yàlla loolu moom apprécier ko képp nga ma a def ndax man damaa jàpp ni suñu tubaab maam yoon wi ñàkk benn élément donte sax maam du élément bu am njëriñ sax mm-hmm. yoon wi ñàkk ko rek mm-hmm. jàpp naa ne erreur la ndax suñu tubaab moo ëf ñëpp ndax mm-hmm. irham jamial wala la wax yërëmal mboolem mbindeef yëpp ko moo ëf ñëpp kon mu ñàkk kenn kon kon na xam ne kon moom ci biir yoon la nekk génnul fenn demul fenn tamit yoon wee ko moom maam maam na jàpp ni utiliser utiliser kaay yoon wi la maam njëmtukaayu yoon wi muy utiliser la na jàpp tamit ni lim doon lim doon xam nga dafa am benn saxaabi bi boo bi mu xasee yonente bi alayhi salaam mhm. ba yonente bi ni gis na ko rey mhm. koo gis rek koo njëkk gis na ko rey mhm. mu dem waxtaan ak xaritam ay ko jigéen ñu ni ko da ngay dem rek fexe ba jigee ko jégalu ko mu keroog daa kaalaw ŋaaw boobu bi ba kenn gisu ko mu ñëw daal ni wax ak yonente bi ay baat yonente bi ni ko daal ni ko waaw boo gisee kaabu noo koy def boo gisee diw noo koy def mu ni ko yonente bi kii mu ni ko maa ngi nii maa ngi nii ndeysaan mu ci wax wa qaala kullu xalilin kuntu amuluhu laa ulhiyannaka inni anka mashxulu innaka yabna abi salma la maqtulu wax yu ci bànnat masha Allah ni ko daal xaritam yëpp di ko daw kenn faale di comme nii mbokki seex yi defoon seex wallaay wallaay maa leen di sant du deret ndeysaan suñ tubaa la loo bokk bokk ak nit boo nee suñ tubaa ginnaaw wan la moo tax sa pas moom ku ko ku ku ko rek bàyyi ko moo tax ni ñu defoon ñoom it euh, abandonné ko. Mhm. ngir loolu waaw ngir loolu. lu baax la <laughs> lu am solo saxaaba yi ñu abandonné ñi leen ñi ñi ñi bañoon lislaam. Mhm. waaye nag bi mu ñëwaatee ñoom ñu accueil ko. Mhm. loolu day wane ni kon ñoom ndekete mm-hmm. pas-pas bu wér a moo ne ci ñoom mm-hmm. ba fi lu seen maam xam naa li may dugal foofu rek mooy euh, mbokki Seex Caam mm-hmm. na ci xam ne ñetti a ngi nii sëñ bi déggante woon ak moom waaye fi ñu toll diggante bëkk dem ba tey ñi ngi déggante ak moom am mbégte trop ci moom kàddu yi nga xam ne yëkkatiwaat na ko loolu am solo waaw <laughs> kon bi euh, message bi jëm ci mbokki taalibe yi ñoom it ñi nga ah, xam ni waaw <laughs> man li may leen di ñaan leen ko fàttali moo ñu xam ni suñ sëñ lépp léppam yërmande la suñu tubaa léppam yërmande la mm-hmm, mm-hmm. ku dem baan ki may saaga mm-hmm. yàlla wëlbatil ma ab xolam ndax daa xamul rek ndax suñu tubaa képp koo noonu da nga koo xamul waaye ku ko xam rek da ko bëgg ndax fi jaar ak li mu daj ak ni mu sonne te lépp mbindee fi jëriñu képp moo ko waral kooku ku ko xam ba xam li mu def ak fi mu jaar rek maanaam moo xam ngay borom xam ak ko ko bañee rek da nga xam rek da ko bëgg moo tax maa ngi wax mbokki taalibe bi leen ñaan ñoom ñëpp ñu xam ni seex seen mbokkum taalibe rek Cheikh seen mbokkum taal dama war naa cee mën a placé pour wax ci mhm, mhm. ndax bu dee Amérique mhm. kër suñ Tuubaa maa fa nekk maa imaam ratib ba kon wax dëgg yàlla moom mu nekk Amérique war naa koo ñaanal ci mbokki taalibe yi kon ñu bàyyi ko xel ci jéggal ko nag taxas mhm. seen xol ci moom xam ne seen mbokkum taalibe la mu juumoon mhm. delsiwaat na xam leen daa juumoon mu delsiwaat mhm. kon nañ ko dimbali rawat na muy ko éloquent ak Cheikh ndax ku mën a wax la <laughs> te xam naa ni xaw jàng na xaw ma jàng waaye yàlla may na ko yàlla may na ko kon nag ginnaaw loolu ko yàlla may kon na ko utiliser ci yoon wi jàppale ci yoon wi dëgg la yoone moom sax day dem kenn mënu ko jàppale waaye téewul rek mën na caa participer loo xam te ni mën naa nekk njëriñam bu ëllëgee njëriñu bokkam sa bopp rek yàlla nag buy mm-hmm. mel ni ko yàq sànq sax sëñ bi loolu li koy li koy gën a dëggal mooy mm-hmm. sànq rek suba bi ma woowee téléphone dani ma am nañu nekk Amérique ñoo xam ne ñaari at ak ñi euh, dañ daan romb duñ ma nuyu mm-hmm. diggante démb ak tey ñi ngi dugg sama biir place di ma nuyu boole ci ak di làmb ci seen poste di ma jox xaalis maanaam ngir mbégtam xol mun am sama ko ci gi ma deltu suñ tubaa lañ bëgg <laughs> murid suñ tubaa lañ bëgg <laughs> uh-huh, uh-huh. nga bàyyi uh-huh, ba suñ bi toogee laa bokk <laughs> dem fenn murid suñ tubaa lañ bëgg kon murid kon ñi xam ni kon seex mi bu dellusiwaatee ci mhm. dëkk bii mhm. nañ ko ubbil buntu yi mhm. xajal ko te xam ni ak taalibe la ci taalibe suñu tubaab te am naa yaqiin ne bu dellusee suñ mun taxaa dana ko dana ko recevoir suñu Seex Bass taxaa dana ko recevoir yoon wi dinañ ko toppatoo dinañ ko jàppale ndaxte nit ko am soxla koo xam te mën naa jëriñ yoon wi du bare bare bare bare ak fi mu jéggaloo tamit ci weeru koor gis nañ bi xam naa du dégg borom xam-xam yi naan xaaj bi euh, nanga ma ko tax a jóg xaaj bi nanga ma xam naa du ñàkk nga faa ko koor moom lépp lépp yërmande la njéggal ak gore ci sawara masalla xadis bi wax sax naan xaaj bi naan xaaj bi naan sax xadis bi wérul xëy na waaye teewul li am solo mooy koor lépp yërmande la lépp yërmande la ndax yenn waaye sax ne bu koor ñëwee mhm. dañuy ubb buntu sawara yëpp mhm. ubbi buntu aljana yëpp tamit mhm, mhm, mhm, suñu borom di jégal jaam ñëpp tamit tey am na ci bis boo xam te ni yow mul itqi la bis la boo xam te ni góoreel nit ci sawara la yàlla nañ ci yàlla boole kon day gën a wane am tawféex rek ndax koor moom xam ngeen ni sëñ beeg koor moom yaakaar naa gis ngeen xas day yaa xayra dayfin yaa mukrima dayfi ci koor la ko def kon yaakaar naa bu fekkee lii xew na ci wel waa ci koor Euh, moom day wane ni kon mm-hmm. Mm-hmm. am na tawféex moom dëgg la am na tawféex rawat na ku mel ni yow <laughs> nga xam te ni wax dëgg yàlla du mm-hmm. sa bi waaye man damaa jàpp man ci gaynde Sëriñ Tuubaa yi nga bokk ndeysaan ndax gis naa li ngay liggéey damay wax ne man vidéo yu bari duma seetaan waaye ma gisee bin taala jaxate xel koom rek <laughs> dama koy bàyyi xel <laughs> jërëjëf te loola sa sa sa taxawaay moo la kon nag ku mel ni yow di ko mhm. eh, ñun ñi mhm. wax dëgg yàlla mhm. ubbi ci lu baax ñu encadré ko ci communication tamit maa lu mu ci a la mu war a wax macha allah ndaxte mën nay wax dara bëgg lu baax sax far juumaale ndax intellectuel moo mel noonu waaw waaw waaw maanaam boo toppee ak intelligence rek ba ba bàyyi côté diine bi mën ngaa tarxiis doo ko da ngay tarxiis waaw ndax comme li mu doon wax naan saxaaba yi bilaal amul bàmmeel yooyu mel noonu yooyu yëpp na ciy waxtaan na borom xam-xam ko ci conseil surtout uh-huh. ndax saxaaba yi bokkuñu wahabiste yi fi nekk wallaay wallaay eh, maanaam eh, ñu njëkk ne bokkuñu bokkuñu ñii jërëjëf saxaaba yi ñoom dañoo dañuy maandu ci ñoom jërëjëf dañuy dañ leen di sàkkul njëggal <laughs> comme ni ko suñu borom digale wallaay wallaay wallaay jërëjëf Boussa eh, xam naa liggéey bi ak taxawaay bi nga am nii yoonu murid gépp nga ko defal hmm. waaye tamit am na ci koo xam ni moom it bég na ci lool muy sëñ Abo Mbàkke hmm. nga xam ni Seex sëñ Abo mooy buntam ci hmm. kii sànq rek ñu sëñ Abo woon waaye eh, mi ngi sant trop. Mm-hmm. Euh, di ma yóbbante ak cant ci ci taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw mm-hmm. seex. Mm-hmm. ak taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci yoonu murit. waaw suñu ëbboo xam na waaw suñu ëbboo moom suñu xarit la. waaw euh, day mel sax Moussa ñëw foofu Amérique. Euh, daan ko waaw dañu nekk ñun lu bëree bëri. ku baax la. suñu ëbboo ku baax la. ndaxte. moom waajuram ak sama waajur mhm. dañuy ay xarit ba pare maase woon macha allah suñu ak suñu gële waaw ndeysaan dañoo maase bokk at muñ feeñee ci àddina mhm. pare nekkoon ay xarit lool mhm, waajuram tamit suñu fataa ba léegi sax ndeysaan seq lu bare bare bare bare suñu fàllu bi ñu rek ku ñu xam-xam ne mbusoo bi ak suñu fàllu moom dañuy benn ali yaa ngi nii te suñ Modou Boussa moo ko joxoon suñ suñu fàllu ko joxoon daanaka man si diggante ali ak gële la dëkk kon suñu yeboo tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar nit ku baax ku amul dal waaw ndeysaan ku am teggin ku yaru ku bëgg lu baax tamit di suñu xarit ñu bokk benn génération bokk lépp maa ngi koy ñaanal moom suñu borom defal ko tawfeex te it li mu nekk sëriñu Seex it lu mhm. am solo la mhm, mhm. ndaxte mënoon na koy nëbbu mhm, mhm. ndax détails yi situation yi waaye fu mu mhm, mës a toll waxtaan ak Cheikh mus koo daw mus ko woon ginnaaw te ñu a waaw suñu ëpp mi ngi a naan rek euh, dagg naa fii billet a lu bëree bëree bëri waaw xam nga ci lu bëri waaw man yeex na maa xam ne mooy sëriñam wallaay wallaay waaye moo xamee laa xam ne kon dekte lii moo taxoon mu fa dem di seeti ak di waxtaan ak moom ak di ko conseillé wallaay wallaay ndax xëy na ak oyofam moo tax du bëgg sax di wax mel noonu waaye daal lu am solo loo xam ne daal yàlla na ko yàlla defal tawfeex moom it gën koo jàppale bu baax a baax ñu xam ne daal seex daal suñu seexa mhm, suñu la waaw <laughs> ndax ci yoon wi la bokk dëgg la euh, jërëjëf euh, mbokk ni bàyyi xel ci euh, tawfeex production sëriñ Xaadim Boussa imaam sëriñ Xaadim Boussa di suñu sëriñ di suñu xarit moom lañ toogaloon ngeen dégg kàddu yu am solo yi mu yëkkati xam naa nag jot gi bariwul xam naa sëñ bi rek euh, kon a euh, ngay tàggatoo ak mbokki taalibe yi lay seetaan. waaw kay sëñ Talla ñu ngi santaat bu baax di santaat mm-hmm. waa production euh, Tawfekh Production mm-hmm. ñoom it ñu am solo lañ mm-hmm. gis naa ni wax dëgg yàlla seeni vidéo du ci gis lu débordé macha allah damay seetlu yu bëree bëree bëri macha allah donte fonk ma youtube mhm, mhm. waaye yu bëree bëri mhm. yu jógee ci ñoom su ma ci jotee ñaare damay xam ne lii ci xam-xam lay jëm wala ci lu baax macha allah daa am site yoo xam te ni daanaka moom ruube rek la waaw <laughs> da ngay mujj sax naan xanaa lii dëgg la ñii bokkuñ ci yoon wi dëgg la ndeysaan euh, mag ñu ngi koy sant dëgg la waaye di lancé benn appel tamit rek yaa ngi may laaj suñu ma jama léegi nii waaw euh, Bichri TV Euh, muy kër Sëriñ Tuubaa gi mhm. nga xam te ni daanaka mën naa ne at yi moo tax ma toog fii ci réew mi waaw dañ koo toj depuis 2016 di ko defar pareegut waaw te suñ Pape Dramé mi mi président bi mhm. démb rek mi ngi may woo di ma wax naa ma daal boo ñu mayee di soñoon mbokk taalibe yi mhm, ñu xam ne kër suñ Tuubaa gi daal dafa am gàllankoor te bëggoon nañ ku ñu ku ci mën a jàpp rek mhm. bëggoon nañ mu jàpp ci mhm. kilifa yeeg ñëpp mhm. rek ñu ci doxi suuf sax waaye téewut rek comme média la waaw ñu war lancé waale ci appel pour ku ci mën a jàpp rek euh, nga jàpp ci boo demee ci internet boo tapé mika rek mooy islamic community in da ko gis ndax su yonente bi sax moo ne ku tabax jumaa ngir yàlla yàlla tabaxal ko am néeg ci aljanna masha Allah euh, te euh, jumaa yi Sëñ Tuubaa ca New York moom lu ko ëpp solo ndax bu lu bëree lu luy xewal ci réew ma mhm. jumaa yi taxawal na ba mhm. amul mhm. ndax suñu mortulaa mu tedd mi bi mu koy sanc dafa woo ay kilifa yu mag ku nekk mu jox la doon la jàng ko fii nga xam ni dafa mujj eh, meeru New York bi dafa mujj xam ni am na lu xew ci kër Sëñ Tuubaa yi ba tax maam rey gi amoon Amérique Harlem nga xam mooy dëkk bi ëppoon lu ñuy rey ci kaw suuf ci ci Amérique demoon ba loolu amatu fa far Harlem set wicc ba léegi fi ne tubaab yi sax ñoo koy commencé dëkk si Mm-hmm. nit ñu ñuul ñoo fa doon dëkk di rayante ci seen biir mm-hmm. waaye léegi tubaab yi ñu ngi commencé da génn nit ñuul dafa dëkk ndax sécurité ba mu am te loolu lépp kër suñu tubaab képp ko waral mm-hmm. liggéey suñu murtalaa bi képp ko waral kon maa ngi ci soññu mbokk yëpp ci ndigalu suñu maam Mor mi nga xam te ni mooy suñu kilifa te kilifa euh, mboolem diaspora bi yëpp tamit képp koo xam ne daal maam fas yéene nga euh, liggéeyal suñu Tuubaa ci ci ci lu mel noonu ñu ngi la ciy woo la ci la ci ñaan nga jàpp ci ngir euh, bu ëllëgee suñu Tuubaa mën la ko inshallah inshallah